assalamualaikum guys yi comme d'habitude képp koo xam ne abonné goo ci page bi dañ la wax loolu nga abonné te activer cloche bi di like vidéo yi te di commentaire te dama ñëw pour wàlle nan la ñuy jouer match gratuit ci 1xbet très simple day wa ab na leen te ngeen partage vidéo bi ah doo ñëw dugg ci 3 points yi dugg ci 3 points yi ni nga bës autour indi flèche bi nga dugg ci toto nga dugg ci toto oh ಏನನ ಗೊದ್ದುಗುಸಿತ್ತೋ ಗಬ್ಬಸ್ ಫೆಲೆಸ್ನಿ ಗೊದ್ದುಗಿಸ್ತೋ ಅಪ್ಪನೆ ಫೇಂಗೆ ಬಸ್ ನಿಂತುತೋ ಕ್ಯಾಸ್ ಗಬ್ಬಸ್ ತೋ ಕ್ಯಾಸ್ ɓe windilange gabas wan exitoto fere léegi masiya yi ni léegi masiya yi ni quoi boo bëgg a gañ xam nga tudd xam nga ni ñuy jouer marché v1 v2 fois bi nag amut lii amut gañ wala niil amul dara que da wax day gañ wala day day niil wala gañ rek wala niil gis nga mi ngi nii doo mayee kii gañ may kii gañ exemple ma rëdd benn coupe wala nga match yi yoon la tegal yëpp ngay joué nag amul joué bi am bàyyi mi yëpp ngay joué léegi nag boo joué match yooyu yëpp léegi nga bës moo am na match bu des da ngay gis am na match bu des waaw kii ma ko tëb ma joué appelé placer un eh, pari ngay bëss placer un eh, pari bësé placer kon coupon bi jall na ay ngis coupon bi jall na te xam nga bu jé sama yow bo sélo ya, 0 francs la def la la la des après nga ñëw dugg fi fi ngay xolé mas yi boo duggee foofu nga bëss fi ni ci kaw après nga dugg toto xam nga toto nga dugg won jëf nga duggat nga dugg toto boo duggee toto lii la lay indi nga gis match bi laa léegi mi ngi nii maa ngi gis mi ngi nii match baa ngi nii léegi gis nga yàgg naa joué di perte yombut a jàpp nag ndax match yëpp foog nga def gañ wala nii amut ay double sens amul dara amul dana am lii bi amul dara day wax ne nag abonné te ngeen partage vidéo yaa ngi si yii yëpp gañ naa ko mais malheureusement dama perte yu bari moo tax yombut a jàpp nag y'all ain't Jefferson guy. I wanna